Khalifa Sall du réalité politique loolu moom du wax. Khalifa Sall non defal ndànk rek biram biram Khalifa Sall. non non non non non non non defal ndànk Khalifa Sall du ñooñu. honnêtement xale non defal ndànk rek. parce que déedéet euh, mënoo nekk maire da. non non waaw defal non defal merci est ce naa est ce naa wax est ce naa wax. Euh, euh, sëñ bi Dakar boo ko contrôlé. contrôlé Bank. ndànk. contrôlé <laughs> tu ko de. nañu waxtaan nañu nañu nañu waxtaan mais voté guñu bu voté waatee. ci diggante bi amul sóor waaw waaw waxu ngelaw la non xam li wax ñu laloon ci dara la. biram ah. xam nga euh, da nga ne élection mooy baromètre pour ñu xam. homme politique ñu muy représenté Khalifa Sall dem na sax ba premier ministre yéen. seen premier ministre devant lui mu ko. contre vous vous êtes au pouvoir Vous êtes au pouvoir Vous dem élection municipale loi bi mu loolu seen réalité Khalifa saal bu représenté wul woon dara ci politique du dem kaso loolu mooy dëgg léegi li ci topp mooy Ablaye Wade il faut ñu wax ci diggante ma Macky Sall diggante Ablaye Wade ah, xam nga xam nga xam nga li ma la wax Wade Macky ñu jeexal li ma ci xalaat la Yérim euh, Wade Macky on termine non benn affaire damay koy reprendre ci benn affaire ndaw feeñ koy reproché mu ne ñëpp a koy def loolu délit la mais en même temps bu politique won du def wala def non def non non ñepp koy def. donc def oh non non non wala def non non ñepp xam nañ ko man sama position ça a non claire. non a koy def non du excuse. mais donc def non mais politique non tax ñu non ko ci